salut les internautes d'Africa Global Express TV Nous amati été di dalal ki nga le néna la ci biir nak yi dafa sol ndox <laughs> muy patin patin kenn Je suis dégguko. patin ci lo né? waaw ngi Sénégal di nuyu de yëpp patin le. mu ngi wax ci projet parce que ku xam-xam dëkk bi Covid dara waaye nag di si sant yàlla bu baax comme jeexaat na au reprend maa ngi nii wasalaamaaleykum. fan nga teg ne Covid bi jeex na patin ba tey kaa yee ngi yokku nit ñaa ngi génn àddina seulement que vaccin bi ñëw na xaw a am benn wàññite bu mu fi xaw a wàññi rek. oh ñun daal. covid bi jeex na jeex na ndax commencé waat nañ suñuy activité fu ñu bëgg a dem spectacle dem fu ñu bëgg a dem tournage dem noo couvre-feu arrête couvre fa jeex na jeex na man jeex na ci man mhm. yow daal jeexal nga ko. waaw jeexal naa ko. yaa ngi ci activité maa ngi samay activité di waajal lu rëy. Mhm. lu ponkal lu pataa sax. Mhm. lu yaatu na ko ñëpp xaar. jaajëf loolee du yomb waaye Patin gis nañ ci ayubis yi ñu génn maanaam lu tollook weeru yàlla ñoo ngi dégg benn coow mu ñeel ki nga xamante ne moom moo di Ousmane Sonko ak Adji Sarr coow li daal dinay bari ba ay doomu aadama daal ci ñàkk seen bakkan Patin tey nga am ci sa mot à am ci sa góomu xol boo ci bëgg a jooy jooytu ko ci Patin tey ban yëg-yëg nga ci am. yëg-yëg bu ñu si njëkk am en tant que sénégalais mooy képp kuy sénégalais li fi jot a romb metti na trop trop trop trop dèjà nu mu njëkkee metti mooy doomu jàmbur yi nga xamante ne génn nañ si àdduna lu ma ci gën a mettiwaat mooy ñi nga xamante ne ay sénégalais lañ dëkk ci dëkk bi am seen alal investir ko ay ay samba booy di wër di dajj seen i magasin waxuma affaire tubaab yi ñu dajj ah. Mm-hmm. loolu sama yoon nekku ci xam nga mais affaire yenn magasin téléphone yu sénégalais yu jël dajj ko dugg fa sàcc seen i marchandise daw loolu dañ koy ñaawlu bu baax a baax gis nga nit am na ñoo xam ne ay nitu fitna lañ. Mm-hmm. am na ñoo xam ne ay nitu fitna lañ. tey boo fi toogee ay xaw ma aji saar xaw ma boo fi toogee wax six wax neuf wax ki kenn seen wax loo xam ne kenn comprendre ko sénégalais yi sénégalais aba dama leen di ñaax benn affaire mooy képp kuy sénégalais nekk ndaw gis nga si dëkk bu ñu nekkee si gis bu ñu nekkee si dëkk. tey Adji Sarr génn na télé wax naa wax na man damaa ruus non xam nga la moo tax ma la moo tax ruus mooy tey li mu wax waxaabulul li mu wax waxaabulul yàlla nag moo xam ay Ousmane Sonko jaar na fa ak jaaru fa comme dem moom dem na ba ñu maase ko mais jaar na fa ak jaaru fa def na ak defut ah. loolu suñu boroom moo xam waaye nag kaay nag kaa ñu waxante dëgg nag Adji Sarr dafa ne njiital Pastef di Ousmane Sonko dafa àgg ci kawam dakaa forcé benn yoon ñaari yoon ñetti yoon ba ñeenti yoon tëddee ko te tëddee googu neexu ko mu daal di dem bind ci plainte. waaw noo xam nga tey ñoom ñaar ñoo fa nekkoon ñoo ko wéet ak yàlla moo leen ñetteel bu ne comme Ousmane Sonko moom man lu may njëkk ñaawlu mooy Ousmane Sonko ak kii bu mu am Ousmane Sonko moo warul dem foofu di maase wu man damay dem massage mais ay almaañ laay dem. ay Autriche ay Australie foofu loxo tubaab yi di ma maase mais sénégalais dañ lay maase ba pare yàq sa der moom moo fa dem guddi luy am am na jàpp nañ ko sénégale génn nañ manifesté wu na. xam nga sénégalais génn nañ manifesté wu nañ man daal dina màtte ak du màtte moom moom mi fa dem avant tout ñun ñëpp ñaawlu nañ boo ko gars yi ba ñu déggee jàpp nañ ko bëggoon nañ ko tëdd en tant que ay sénégalais tamit bu comme lu lu doon am am na ba coow am ba bare moom waru fa woon dem pour mu bàyyi loolu ci xelam xam ne dafa am ay nit yu nekk ci ginnaawam. Mm-hmm. yaakaar ko ëllëg mu bëgg nekk suñu njiitu réew. dégg naa Adji Sarr sa mbokk la. non xam nga lu ma gën a metti internet sit bu ma taal gis ñu def patin Adji Sarr loolu saa ma fee maal metti na ma torop loolu metti na ma torop. ci naka mu metti ma c'est que lii benn problème te du liggéey la man bu ñu ma yàqal sama liggéey fenn liggéey la. man ci fen laay teg teddee kon buñ ma yàqal sama liggéey gis naa lu mat fukki site ak juróom jël sama photo ak photo aji saar collage ko def patin aji saar xam nga defaraat ko solal ma rob solal ko robe mariage solal ma costume dèjà si yooyu sax du man biceps yooyu du man xam kon yow daal nañ la bàyyi ci sa liggéey bi ñuy liggéey bi ngay liggéey ñu bañ cee jël di ci dugal ki nga xamante ni moo di Adji Sarr waaw xam nga dañoo def numéro un numéro deux waaw ndox ba ma rawee ah. ndox ba kon da nga jàpp ne Adji Sarr la raw ah, moom lañ def numéro un numéro deux moom lañ def wan naa la léegi vidéo bi dañoo def numéro un def numéro deux ah. xam nga te fen métier noble la mhm. waaw fen métier noble la xam nga nañ nañ ma bàyyi ak sama liggéey balaa sama école bi di tëj tëj parce que comme dem naa ba créer plan Sénégal émergent dafa am ma créer plan fen émergent di former ay xale yoo xamante ne wax dëgg yàlla ñu ngi ci yoon di nang nànk nànk nañ ma bàyyi ak samay kii daal loolu daal waaw mooy loolu. nga ak le message est fort kon nag yaakaar naa ne internet yi dégg nañ ko Pathin nee na nañ ko bàyyi ak liggéeyam Adji Sarr ak liggéeyam ci wàllum maase ga nga xamante ni la féete yow mi nga xamante ni ci wàllum leneen gi nga féete muy la mito. Mhm. Pathin nañ la ak sa yëf. jigéen yu bari tey dañaa nekk ay victimes ñenn ñoo xamante ni violé nañ leen ragal nanya wax senuk viol tay ku ci mel ni Adji taxaw daal di wax violam mu daal di jur bakkan yu baree bari yu ci tëdd xale yu jigéen ñi ñoom dañ leen di violer wala ñoom ñooy violer waate wala patin tay mbir mi doy na waar de. xam nga lan mooy problème bi mooy ay Adji Adji Sarr ak Ous ak Ousmane ñoom ñaar xam nga man du ma wax dina màcc ak du màcc Ousmane Sonko demu ci de parce que moo fa dem tamit. xam nga moo fa dem te Adji Sarr génn na télé c'est que Adji Sarr bu mu def ba mu génnee ci télé bi ay waxam moo gisul wax na ñaata ba may compter waxi quatre vingt wax yo xamne ben bokku ci ak sa morom Ousmane Sonko xama Ousmane Sonko mo fa dem xama xirma xam nga affaire góor ak jigéen la. affaire góor ak jigéen la xama man sax bu ñu wéetee dara wóoru ci. man sax su fa demone ni aji Sonko mase ma. xeyna na naa def pexe quoi. xama comme mom dal mo fa dem. salon ba mos nga fa dem. kan non man Allemagne lay ma man Sénégal yi mënuñu ñuma mase Sénégal man produit yu may mase wo amul fi non ñii duñ ma maase du ba aji sar dal neen Ousmane Sonko dem na ci. waaw Ousmane Sonko. nee na demu ci. nee na demu ci. Mhm. indi na kaam bi bu Ousmane Sonko waatee. Mhm. na demu ci. Mhm. mu génnee plante bi. ah man de xam nga la laa gëm. barki Seydina Mohamed faralu ba Macky la man man Sénégal moo ma ñor ñun ay Sénégal lañ Sénégal moo ñu ñor ba ñu waxee ay affaire u milliards ñu ne waa ji nekk géejawaay moo ko lekk mooy renoo ren waaw ba ñu waxee moo ko lekk. ki nekk géejawaay de dañaa bari ay Lat Diop nga fa Alioune a nga fa. kan nga ci bëgg a wax la kooku wax nga turam. mooy frère Macky Sall bi daa indi kaamil waat. nee na moom demu ci. nga ni naka nga ko tuddee. waaw non dafa nduroog benn acteur film renoo ren te mu doon dawal moto bi ten ten dañoo nduroo xam moom indi na kaamilam waat na moom xaalis boobu gisu ko. Ousmane Sonko nag. man lenn rek laa koy ñaax lenn rek laa koy ñaax mooy tey tey nii nii nii Sénégal fii ñu nekk nii. Mm-hmm. am na ñoo xamante ne xeex nañ ndax moom de. Uh-huh. coow nañ ndax moom. mais tey am na ñoo xam ne bu ñu ko jàppee woon cinq cent cinquante pour cent. parce mm-hmm. que wàññi nañ. Mm-hmm. mu nekk vingt pour cent. xam nga lan moo waral lool. benn responsable benn nit boo xam ne ëllëg bëgg nga jiite réew mi. Mhm. mais lan koy dem di waaye nag ku sa yaram di metti déggoo lim la wax nee na yaramam moo laaj massage te massage fian la demoon defi ji muy 4 mai yoo xamante ne dañ koy bësal yaramam. tey feebar am na fu muy toll ci nit il faut que nga jug seeti ji ka nga xamante ne moo la doy ci sa yaram ñu defal la ay massage looloo ko fa yóbbu. barki yàlla am nag bu jëndoon Carité Mali bi am na ñaari jabar jël ko def si limon ñu maase ko kon lii yëpp du am. li yëpp du am. kon yow yaa ko jox remède boobu karité Mali ak limon. ak limon. Mm-hmm. mu koy maase woo. Mm-hmm. gis nga nit boo nekkee si dëkk nga nekk fi nga nekk fi benn affaire ay nit ay nit nekk sa ginnaaw daa am loo xam ne da nga koy moytu nga koy bañal sa bopp. loo xam ne da koy moytu tey doomu jàmbur yi dee ay doomu jàmbur kese ñoo dee léegi lan la ñuy def dem seeti leen may leen ku nekk benn un million après jeex na. xoola ki dee binjoona xoola ki dee binjoona yaayam nee na moom kese la am ñu jëndal ko jakarta moom mooy daw lu muy indi ci kër gi pour waa kër gi di lekk doomu jàmbur léegi rey nañ ko léegi kan moo perte yaayam mhm. yaayam moo perte Sénégal nañ bàyyi nañ bàyyi yenn affaire yi mooy Ousmane Sonko muy aji saar muy man benn politicien laa gëm Sénégal billaahi muy Barth mhm. parce que dafa gëm boppam am na loo xamante ne Ousmane Sonko moom loolu xelam sax bu mu ko xalaataat mu koy def deuxièmement bañ koo bañ koo bàyyee bañ ko bàyyee am na loo xam ne day Sénégal warul am fitna fii ay mag yu baax ñoo fi tëdd. yaakaar naa message bi fort na. waaye ba manifestation yi amee Patin dégg naa policiers yi dañ laa tëbali nga am noo def. noo xam nga la moo tax man du daw man <laughs> benn responsable la duma génn man duma ma benn nit la benn nit la wax dara mu metti ba ma dem sànni ko xeer muy sëñ Bamba képp. parce que Seydina Mouhamed du beneen doomu aadama. kon lu la jaraloon manifester. non lu ma jaraloon. génn ci manifestation yi. musuma dem manifestation xam nga la moo tax du ma dem. da ngay bu ñu après boo demee da ngay dem ñu tiire la bal perte pan man ma doon rombee euh, na ay boo yoo xam ne maa leen sabe capté naa treize bal yoo xam ne nii laa ko doon def bal yi di wadd mhm. tey ñooñu bu ñu deewoon dañuy gën a yokk moor yi mhm. mais yàlla def na ba sabe naa leen. Mhm. waaw parce que suñu bu jóge tournage au dos sama saa xeex am ma dox ñibbi du xeexal benn doomu aadama. Mhm. man mais seen bamba képp laay xeexal. mais encaissé yoo. xam ne maa ko sëbee waaw. waaw ay balles perdues yu doon rëcc la. Mhm. ma commencé ko kii di di ñaanal homme de tenue boobu nga xam ne wax dëgg yàlla benn loxo bi da ko deñ. Mhm. ñu naan ko wax dëgg yàlla dafa am lu mu doon service Sénégal. loolu comme. loxo bi kii na ñu koy ñaanal yàlla na yàlla yàlla na am tan bu baax a baax di wax nag état bi ñu jàppale ko parce que doomu jàmbur la. Mhm. même bu dee homme de tenue la doomu jàmbur la. Mhm. ñu ñaanal ko xam nga bu baax mu tane. Mhm. moyen yi ñu mën a def pour kii ko pour poose utal ko. loxo nañ ko ko utal parce que doomu jàmbur la. nee na oto bi affaire bi mu sànni si oto bi la duggoon mu xam ne su ko fa bàyyi woon ñoom mën nañoo dee parce que ñu ngi ci biir mu génnee ko sànni ko mu dagaloo xam ne gars yi nañ ko dimbali. Mm-hmm. nañ ko dimbali bu baax a baax a baax. Mm-hmm. beneen waa ji tamit dëkk Kébémer te loxo bi dagg kooku tamit na ko gars yi dimbali. Mm-hmm. gars yi il faut Sénégal il faut que ñu am yërmande. Sénégal dafa am ñoo xam ne suñu dëkk bi fii ñu benn yërmande. billaay walaay taalaay dëkk bi metti na pendant un mu pendant un an mu metti ci artistes yi. metti na trop ci artistes yi doo am spectacle. doo am dara gars yi ba ñu génn di manifester wu ñu bëri nekkul affaire Ousmane Sonko moo taxoon ñuy manifester wu. Mm-hmm. ñu bëri affaire yu sonn nañ dëkk bi amul xaalis xam nga mm-hmm. spectacle amul amul dara. Mm-hmm. amul dara dara loolu moo taxoon ñu bëri génn. di manifester wu far li duggaale ci. waaw. tey lan moo nekk seen programme tey Patin lan moo nekk tey programme am loo xamante ne war na kaa dérouler ak mois de ramadan bi di ñëw. waaw tey Patin mu ngi tourné koor gi ak Patin bientôt maa ngi ñëw def benn émission. na ko gars yi xaar da ko diviser chaque samedi à six heures nag laa koy def mais dinaa leen wax après fu muy daw. Mhm. maa ngi loolu maa ngi ne koor gi ak patin. Mhm. xam nga wax dëgg yàlla ba pare ñun théâtre kat yi suba mooy suñu journée muy journée mondiale du théâtre. Mhm. xam nga suba mooy suñu journée parce que ñun loolu mooy suñu tabax si mooy suñu korité. ñun ñun ñëpp jour journée mondiale di théâtre la ñuy gisante. xam nga mooy suñu journée loolu moom dañuy sant gars yi ministre bi bu baax a baax. xam nga dañuy sant ministre bi am na benn fond xaalis boo xam ne may nañ ko artistes yi muy comédien musicien artistes yi ñu war a jot gars yaa ngi jot. xamu ñu bëri jot nañ seen xaalis. Mm-hmm. xam nga loolu di ci sant yàlla parce que ñun amuñu lu aar ñun aar lañ yaakaar. Mm-hmm. liggéey ñu dara xëyuñu ñu aar lañ yaakaar. Mm-hmm. xam nga waaw wasalaam. Patin Patin day wax rek mooy Patin tey li muy wax mooy. parrain benn artiste la bu ñu génnee en dehors de artiste bi citoyen la sénégalais la si dëkk bi la dëkk xam nga si dëkk bi la dëkk il faut mu gis tamit loo xam ne war na koo wax non mu wax ko te bu ñu gisee loo xam ne war nañ koo wax dañu koy wax te buñ koy wax dañ koy wax ci yar wax ci fulla wax ko ci fayda pour sénégalais xam ne ñii ay artistes lañ xam nga ñii ay artistes lañ te effectivement xam nga dama dégg keroog gars yenn rappeurs yi di saaga théâtre kat yi ñenn ñi di saaga théâtre kat yi naan mars bi ñëpp ñëw nañ gisuñu ci benn théâtre kat am na théâtre kat yu dem mais feeñuñu caméra jëlu leen am na théâtre kat yu bari yoo xam ne dem nañ ci mars bi tey am na loo xamante ne doole faju ko am na loo xamante ne doole faju ko Macky Sall la moo war a yërëm sénégalais yi xam ne ñun ñoo ko fal Macky ñun sénégalais ñoo ko fal rawatina ñun jeunesse bi 2012 2012 ñoo sacrifié suñu life def lu ne naan paa bi dafa doy dafa doy na dem na dem tey ñun jeunesse bi ñoo ko fal Macky paa yi faluñu ko ak mairie de paa yi ak mairie dañoo Abdoulaye Wade lañ faral. ñun jeunesse bi ñoo ko fal kon ñun buñ ko falee ba ñëw. Mm-hmm. ba teg ko suñu réew ay waaye ndox bu toogee. non na def lu jeunesse bi bëgg tamit quoi. amna solo waaw. amna solo patin tay gis nañu li nga xamanteni tay mom mo di seen milieu bi milieu théâtre bi milieu bi nga xamanteni mom mo moo ñeel wàllum comédie bi ñu daal di gis ku ci melni ni Diaw bu dafa feñ laq la ñeneen ak ñeneen feñ laq la patin lool lan moko ko waral. non non non c'est que xam nga patin dafa togon doon am leneen lu mi liggéey man man mun naa fen 100 ans te lu ma fen duma ko fenaat parce que man fen moo may dundal. wax dëgg yàlla man su may ànd ak yow nekkoo fenkat sax dama lay bàyyi waaw man dafa am lu ma doon liggéey am si lu ma nekkoon nag te nag saa gis nga boo nekkee ay sites yu am doole laa jaar te ba ma fay dem ba may jaar ci yenn sites yi du dara néeg la woon mille abonnés mu dem ba nekk un million sept cent abonnés te dama te dama ko fa liggéey ci site bi loolu par force doole mbaam am bokk si ñu ko fa liggéey site boobu dama fa nekk ba muy nekk néeg ma ñëw ba jël meilleur jeune comédien 2016 meilleur youtubeur kon am na loo xamante ne dama ko fa liggéey mais nag non su ma la tegee loxo teg loxo teg loxo ba site bi dem dem dem ba site bi àdduna bi yëpp xam ko mm. noo damay dem jàpp beneen site teg ko loxo dem jàpp beneen site ba nag tey ma am sama site ah di si di si liggéey maa ngi si bu baax bientôt léegi ma ñëwagul sax te wax dëgg yàlla toll naa si huit mille abonnés. Mhm. te ñëwagul. Mhm. waaw muy Patin le mytho officiel. Mhm. parce que dama ko waxoon fii ak ay fan yu néew caméra yi ma yor. nit moo ma ko jox sama cadeau anniversaire. muy Souleymane borom Allemagne. moo ma jëndal ñaari caméra jilaa bo ji jëndal ma ñaari caméra kon loolu maa ko moom. te damay ñaan yàlla yor sama yëfu bopp. Mm-hmm. bàyyi di liggéeyal benn site di diviser. Mm-hmm. di yokk sa site audience di bàyyi sama site maa ko waxoon fii ak deux mois sama site ma tourné sama site laa koy publier mu dugg. d'accord waaw. mu daal di nekk lu am solo nga nekk jeune boo xamante ne gëm nga sa bopp nekk booy Grand Yoff ngëm-ngëm ba yàlla dogal nga daal di ciy àgg foofu mais dama ni fay gi nga fay lan moo waral fay bi nit ñi dañ laa woowatul ci yu ni mel wala. waa léegi ma wax la benn affaire. Mhm. chaque jour nit woo ma maa dul liggéeyal si nit. parce que dama am sama yëfu bopp te Patin waaw waaw jërëjëf fay naa man àdd man heure boobu doo dugg YouTube par force doole leen ba am ba jeexal YouTube bi doo ma gis force. Eh, léegi xale nañ jël lépp waaw man ki dem ba def li man youtubeur bu def li ma def. ah bu la neexee nga diir ma mbagg youtubeur bu jël ñaari yoon meer youtubeur am trophée dugal ko sa biir néeg youtubeur bu ko def nga jël ma may la youtube sàppi na ma man man doyal naa youtube ñan mooy projet yi nekk ci sa kanam actuellement waaw projet bari na projet yi nekk sama kanam bari na na gars yi xaar tourné naa patin le faux milliardaire ak 5 TV mm-hmm. bientôt ñu commencé ko diviser mm-hmm.

ne ma dañ maa booleeg yow diw ak diw moom boole dama bëggoon ñu liggéey Patin le Faux Milliardaire trente épisodes ñaata nga ma koy jaay ma ne ko temps ma ñëw mu tourné ko toppeewu ma dara su ko neexee tax mu supprimer ko ñu tourné waat ko mu fayaat ma looloo ma gënal. dëgg waaw. jaajëf ma di la jaajëfal bu baax a baax amoon mbégte ak kontaan daa daal di lay dalal tey ci Africa Global Express TV.